moo ngi noonu mu mel ni que ne nag ki nga xam ne moo di Anita Diop daal nañ koy démasqué mu nekk nag mbir moo xam ne jamono bi bokk na si les patriotes yu bëree bëri doon xaar ngir nag kan mooy Anita Diop nga xam ne nag si fàttali moo fi génne woon ay images yoo xam ne nag ñu ngi gisoon kii di premier ministre Ousmane Sonko si oto bi mu nekkoon image yoo xam ne nag sénégalais yu bari daal di woon nañ koy ñaawru mu nekk lu doy waar ñu daal di leen dëggal nag. révélation yu am solo yi nga xam ne nag ci missionnaire daat ñu koy def si mbir moo nga xam ne nag daan nay am wax mooy Anita Diop naka la ko démasqué ba génn ay images yoo xam ne nag ñu si bari bari daat na leen ni jaaxal loolu que nag ndekete yoo jëmm ji moo nekk ki nga xam ne nag moo di Anita Diop ba ñu ko doon jaawale sax di wax que ne nag ki fi nekkoon ministre si jamonoy Macky Sall moom la ndekete yoo nekkul moom mais dañoo bokk li nga xam ne nag moo di tur exposition bi nga xam ne nag euh, daal nañ ko si amal ba démasqué ki nga xam ne nag moo di Anita Diop. nga xamante ne moom mooy Anita jóob waaw Anita Diop euh, je pense que tous les Sénégalais ñu ci bari bàkkaaru nañ ci euh, du ma ne sax bàkkaaru nañ ci mais ñu ci bari ku ci nekk jiñ nga ko kenn man jiñ naa ko kenn jiñ naa ko keneen kenn kenn jiñ na ko kenn mais booba dañoo nekkoon ci benn combat boo xamante ne ni ay taajum ñoruñu woon nim ñu waroon a ñoree parce que ci combat lañ nekkoon ma joxe woon fi nag ay indication yu baari yoo xamante ne ku leen jàpp gis ay taajum man nag sénégalais yi di di def man ma nekk jël benn combat def ko muy sama combat ma ne je vais démasquer Anita Diop à à mon propre moyen à tout euh, lu mu jar naa ko def ba génn ki nga xamante ne ni mooy Anita Diop ba finalement yàlla may na ma ci ba mujj naa génne Anita Diop euh, te ma wax leen ne leen ba bërki dem ba tey publier wul te maa ngi xaar publication yam te dinaa dugalaat ay preuve wan leen ne leen ba tey bàyyiwuma compte am maa ngi ci compte bi sans li mu changé ak lépp dinaa leen ko wax ñaata compte la am numéro yi ko ubbeeg lépp dinaa leen ko wax Anita Diop c'est un homme qui s'appelle fay Faye nekkul nag Birame fay nekkul nag Birame Faye bi nga xamante ne nii mooy Birame fay bi nekkoon DG ASP yi déedéet Anita Diop c'est un jeune sénégalais bu jàng boo xamante c'est un ingénieur informatique dëkk Gandiaye dëkk Gandiaye man yalla dogal nekkoon naa Gandiaye miin Gandiaye di ci pëtaxlu di jale jaalewaale sama papa ju bax ji xam daw mu ju jug këram muy Babou Ngom le tambour major de l'arène bi génn aduna euh diko jale doomam yi ñoom Momo ak ñom ak ñom ak ñom ak ñom Déthié waaw di ko jaale ñoom Babou Faye ak gars yëpp di ko jaale euh, man di leen wax nag neen Anita Diop euh, biñ ko booy la boo xamante ne nii Pape Malick Ndour lépp loo xamante nii comme vidéo la ak comme photo boo xamante ne àndoon naa ki nga xamante ne mooy Birame Faye Pape Malick Ndour boo demee ci page am supprimer na ko carrément amul benn publication bu ànd ak Birame Faye bu nekk ci page yu Pape Malick Ndour yi ma génn démb foo leen ko gis moom Pape Malick nduur ñooy ànd. mais démb à partir de presque une semaine retiré les plus luy photo moom Pape Maye Ndour ak kii nga xamante ni moom mooy euh, Birame Faye dem len ci page Pape Maye Ndour ngay xol do leen fa gisati benn photo bu mu ak Birame Fay retiré na tous ces photos légui Biram Fay moomu ñu ngi ko logé won ci benn kër étage mu dëkkoon ci R plus 1 bi d'après mes investigations ci R plus 1 la dëkkoon ci étage bi étage bi mi ngi nekk Maris en face directement gendarmerie Maris man bi nga xamante ne ni bëgg naa gis Birame fay dafa am fii France ñun ñëpp xam nañ Europe ay booy yoo xamante ne ni ay booy dëkk bi lañ du ñu liggéey ci compte jàmbur yi la ñuy fanaan compte bancaire jàmbur yi ak ñoom seen ma am ci ay booy yu ma ci xam yàlla dogal ma dem waxtaan ak ñoom ne leen dafa am benn compte bu ma bëgg a am lii nga xamante ne ni mooy preuve ci compte bi euh, euh, booy ne booy am luñ ma laaj ma see ma def tous les moyens ba génne loolu jox leen ko toog ak ñoom compte bi internet bi ba dem dugg Google bi ba dem ba accéder ci mailu Anita Diop mu tudde mu mu compte bi maam Diop numéro de récupération bi 33 bi léegi ñuy tenter les faux codes pour nangu compte bi léegi ci jour da doon yëngal compte Anita Diop bi léegi ñu tenté plus de six codes mu koy envoyé message yi ci guddi gi la Anita Diop def euh, kii bi publication bi daa di ne loolu ça fait une semaine daa di ne ah man Anita Diop kat euh, yéen ñi nga xamante ne nii nit ñi da ça fait une semaine ñi ngi sama compte bi di jéem a nangu adresse de récupération compte bi lii wane na man li may wax. c'est confondu kenn mënu ko dindi mooy compte Anita Diop bi biñ ci nekkee Anita Diop mosoo leen gis Anita Diop def publication ne ñu ngi ci sama compte bi adresse pour récupérer compte bi kon xam nga ne moom xam na ne am na ñu nekkoon ci compte am mu def publication boobu ma capturé publication bi denc ko. ci même jour bi laa fexe ba am numéro kii di Jean Baptiste yónnee ko ko gis naa ne liir na ko. mooy yónnee ko ne ko Aïta Diop mi ngi nii kii mooy Aïta Diop mi ngi tudd Birame fay boobu amaguma investigation yi wane fi mu dëkk ak ñoom seen bërki démb ci guddi bi ma ñëwee ci groupe bi di wax leen ne leen jàpp naa ko xam naa kan mooy Aïta Diop depuis boobu ba léegi Aïta Diop publié wul te man ngi koy waxaat fii ba tey depuis boobu ba léegi publié wul ah ah depuis bërki démb ba tey Aïta Diop publié wul léegi. li nga xamante nii loolu yëpp am na léegi numéro téléphone bi bi jeexee 33 bi booy yi dañoo jël dañ ma dañ ma indiqué jël li nga xamante ni mooy adresse mail bi dugal ko ci seen application yi ñu def mu génn trois façons numéro trois façons numéro yu bokkul ñu ne ma ñaari 33 yi nii mooy compte bi moom la ubbee compte bi gisaat beneen yeneen ñaari compte yu mu ubbiwaat ci yeneen ñaari numéro numéro bi ki digg bi te ma dugal ko ci la ubbee Birame fay éternel activiste ubbee ko ci adresse mail bu nu bind Birame Faye 01 arobase gmail point com mooy deux numéro bi ki digg bi yéen a ngi dégg ma yaakaaroon ne Birame Faye bi nga xamante ne nii mooy Birame fay bu ASP loon man moom laa ko jàppoon am na ku ko dugal démb. ma jël ko dugal ko mais finalement dama ko supprimer parce que après am naa investigation yoo xamante ne ni Birame Faye boobu noonu mooy Anita Diop te génnul Sénégal mi ngi Sénégal ba fii may wax ak yéen c'est l'originaire de Gandiaye originaire de Gandiaye léegi nag envoyé naa ko à qui de droit képp ku nekk Sénégal di journaliste ma yor sa numéro téléphone yónnee naa la ko képp kuy autorité te nekk Sénégal ma yor sa numéro téléphone yónnee naa la ko bu ñu jàppee Birame Faye enquête yi wulleeku lépp lu mës xew Sénégal danañ ko xam lépp lu mës a xew Sénégal danañ ko xam bu fekkee nag bëgg nañ ko jàpp yoon baa ngi noonu bu fekkee tamit bëgguñu ko jàpp yoon baa ngi man sa bu nekk suba ba ngoon balaa maa tëdd ci kaw lal te damay xëy di liggéey maa ngi liggéey ci domaine sécurité domaine sécurité suba ba ngoon balaa maa xëy liggéey balaa maa tëdd ki laal trois heures de temps laay tëdd maa ngi wër àdduna ak sama sama sama sama sama VPN xel sama xel laa def VPN moom laay wëree àdduna jëli samay information ñëw teg moo tax démb moo tax démb bi ma di gisee journaliste yi di grève ak a def nangam ak nangam ak nàngam ay ree la def dama dem ñun am nañ journaliste waaye am nañ ay journaliste te man yàlla mi ngi tiim xam na ne

téléphone ci ñoom ñooñu surtout il il suffit que ma fexee xam sa tur Marème Faye Sall bi ma bëggee génn numéro am bind ma Marème Faye Sall euh, son vrai nom bi mu enregistré ci extrait de naissance am nekk ci carte d'identité am mi ngi tudd Ndeye Mariam Faye Sall kii di Am Mansour Faye son vrai nom bi may génne turam Amadou Mansour la Amadou Mansour Faye kee tudd Ndeye Marème Faye nii laay def mun a am numéro yi am naa application boo xamante ni tamit mooy li ma wax ci ne ko compte bu la jaaxal boo ma ko joxee ma gisanteeg sama boy yi jàngal nañ ma lépp mun naa la génneel ban adresse mail moo ko enrigistre ak numéro de récupération compte bi lan la jeexee kon Aïta Diop feeñalal naa ko Sénégalais yi te ki ma leen feeñalal mooy Anita Diop mooy Biram fay ñetti compte la ubbi bii mi ngi ko ubbee numéro bi jeexee 33 bi 33 33 mooy numéro commercial bi numéro bi ki digg bi mi ngi ko ubbee Biram fay éternel activiste beneen numéro bi ci toppaat tamit mi ngi fa ubbiwaat beneen compte bu ñu defaat Biram Faye éternel activiste bii mi ngi ko ubbee email bu ñu bind mu ngi ko ubbee email bu ñu bind maam Anita Diop arobase gmail.com mail bu boo xam ne numéro bi ci digg bi mi fa def zéro gmail.com Anita Diop le reste xaw mot de passe am partagé pour nous mun faa jaar di def publication xaw ma nag exact ba xam moom mooy def publication réellement mais ce qui est le vrai le vrai le vrai Anita Diop du jigéen du maire du du du paa xale bu ndaw la Birame Faye la un expert en informatique dëkk Gandiaye demande fa doon poser candidature élection législative yii passé ñu waa APR investir ko foofu noonu pour mu nekk député APR foofu sa dëkk boobu mu dëkkoon muy gànjaay yàlla dogal ñu gañe ko fa biram fay boobu ñoo ñoo ko logé woon maris premier étage euh, naa dugal kër gi en face directement gendarmerie mariste gendarmerie mariste foofu la logé woon ñu ko doon yónnee ay information muy dugal les information moom gis na sama publication bi moom Birame fay gis na ko réseaux sociaux yaa ngi koy dawal ba ba léegi te ba tey kenn déggul mu def ci réaction ndax man du ma xeexee fii euh, France euh, ci affaire Wali Seck ya te jamono yi ñu Ousmane Sonko ñu ñu sotoo ma fa di ma di ak man ba ma moom loolu noonu dugaloon na ko bind ko le petit frère de Mola Morgan nangam nangam nangam nangam le petit frère nag bobu noonu dégg nga bind dugaloon na ko foofu léegi nag bëgg mom mom mu defaat mu defaat publication démentir li may wax changer nak adresse de récupération bi nako dougal Fi comme preuve dougat na ci compte bi fekk mu changer adresse de récupération compte moy adresse numéro téléphone bi mais adresse mail bi munu ko changer parce que mail bi le ubbee compte bi mënutu le changer adresse mail bi lim ci meun lenn rek la meuna don lim ci meun lenn rek la meuna don moy mooy compte bi définitivement mala mu changer numéro de téléphone bi mais mënatu le changer adresse de euh, adresse email bi adresse email boobu moo fa nekk ba tey te saa bu may attaqué fa laay duggaat xool lu mu fa changé lu mu fa bàyyi lu mu fa def lépp fa laa koy xoolaatee léegi nag changé na adresse emailu compte bi nga xamante ne euh, euh, changé numéro téléphone compte bi nga xam ne mooy Birame Faye éternel activiste changé na numéro téléphone bi. Euh, léegi bu ma duggee ci compte bi nga xamante ne nii mooy Birame moom mooy Anita Diop bi dootuma fa gis. numéro de récupération plus 33 bi léegi xam lan laa fay fekk téléphone kii téléphone bi muy connecté woo marque téléphone bi muy connecté woo laa fay fekk dootuma fa fekk numéro bi de mais marque téléphone bi laa fay fekk kon moom xam na ne man laal naa compte bi te xam na ne identifié naa ko ba génne ko mooy biram mooy mooy biram fay bii te wallaahi billahi wala ilaha illallahu yàlla seedeel li may wax man sa jaam boo fa ne lakk ma dañ ma sul sama bàmmeel ma fay njegenaayu Birame fay mom moy Anita Diop feeñ na loolu liggéeyu gendarmerie ak police def naa ko bi ko ba am ci les preuves euh, transmettre nako les gendarmes transmettre nako les policiers transmettre nako les autorités de l'État bu fi publier waté lenen ñu bayiko kon sénégalais la bu ñu xullee nag ba mu ba génn réew mi mom la parce que génn gu réew mi mi ngi fi won lu loxo defar loxo da kay dindi expert la en informatique defar na li nga xamante ne ni tey jii moo jommaloon Sénégalais yëpp ay expert en informatique génn nañ yàq nañ lépp lu mu defaroon fengal nañ ko simp nañ ni comme ni ko Pocati doon waxee simp nañ ñu ñu suuloon wekk nañ ñu ñu daajoon fengal nañ lépp lu ñu nëbboon nii daal la demee Anita Diop mu ngi noonu maa ngi dégg xaar question yi ku ci am question laaj ma concernant loolu ma résumé la ko mu jeex Anita Diop moom waxam tegoo na côté. mi ngi gis samay publication te ba tey publier wul bu publier waatee Anita Diop rek état moo ko bàyyi mu publie waat mais état jot nañ lépp information ci Anita Diop.